benn waxambaane la woon bu doon jànge université ci bisu talaata ñu wax ko ne ko sa papa dafa feebar ba sonn lool àllarba bi nga xam ne si ne moo ci topp moom waxambaane wi ci la war a examen te papa ji feebar na lool papa ji ne ko yow sama doom dama bëgg ñu ànd ñu dem hôpital ma seet sama yaram wi doom ji ne ko papa man de maa ngi ci say ndigal loo bëgg ci laa nekk ànd ak baay ji dem ci hôpital mu jël ay téeréem yi nga xam ne moom la war a jànge ngir préparer examen yi mu war a def suba bi mu demee médecin bi xool papa ji woo doom ji ne ko ah sa papa il faut mu fanaan fi tey ndax yaram bi faw ñu xool ko mbaxam loolu ba pare mu d'accord ak médecin bi mu jël ay leçon yi nga xam ne si moom la war a jànge ngir préparer imtixaan bi muy examen bi mu war a def suba toog ci wetu way jur wi di xool ay leçon ngi toog ci wetu baayam di yor ay téereem di jàng biñ demee ba fukki waxtu ju guddi baay ji daal di nelaw doom ji moom bëgg a profitoo xool ay leçon far nelaw dab ko ci wetu papaam toog foofu di nelaw bi mu demee ba nga xam ne siine waxtu fajar jot na moom xale bi daal di julli daldi di yee papa ji waaye docteur bi joxoon na ko ay comprimé ne ko su fajaree nang ko ko jox ngir mu naan ko. suba jotee moom doom ji war a xëy dem école ngir war a def examen yooyu te li mu jàngagoon ci ay leçon bëreegut li des ci waxtu wi gën wal waxtu la mu ñëw ci mi ci lalu hôpital mu yëkkati loxoom ne ko ñaanal ma yàlla yàlla may ma ndam ci examen yi may jëm baayam yëkkati loxoom jëmale ko asaman ñaan yalla yalla yalla nga may sama doom ji ndam ci examen yi mi jëm. agsi na ci école bi ba docteur bi séddale këyit yi nga xam ne ci la laaj yi nekk laaj yi tolloog juróom-benn fukki laaj moom mu bind lam xam mu tontuwu ca lu dul juróom-ñeenti laaj ci juróom-benn fukki laaj yooyu. bi ñu xëyee suba ñu déclaré ne seen notes yi génn na moom xale boobu waxambaane boobu bokk na ci ñi nga xam ne si ne am na not bu baax am na li ñuy wax vingt sur vingt mu jaaxle lool. ndax juróom benn fukki laaj lañ ko joxoon mu tontu ca juróom-ñeenti laaj mu ne kat lii jaaxal na ma xaaral ma ñëw seeti docteur bi laaj ko ba xam lii naka la mën a demee nii. ñëwee ba agsi ci docteur bi docteur bi ne ko félicitation am nga note bu baax xale bi ne ko man de damaa gis lu ma jaaxal ci sama not yi damaa gis ma am not bu baax te liñ ma joxoon ci ay question tontuwuma lépp. xale bi daal jaaxle daan ne man. daraja bii naka laa ko mën a amee docteur bi daal di jël kayit yi di ko wirifeewaat bi mu xoolee kayit yi nag moom xool na kayit yëpp waaye gisu ci ki nga xam ne si mooy turu xale boobu docteur bi daal di toog xalaat ndeke bi mu corrigé kayit yi am na benn kayit bu doon naaw noonu ndeke kayit boobu doon naaw kayitu xale boobu la moo tax mu ne ko bëgguma tooñ kenn motax ma may la daraja bi nga am ni amaana suñu borom subhanahu wa taala daf la bëggona téral teral bi daali muñ docteur bi laaj ko lutax mu muñ mu nettali ko li nga xam mo xewon ci hôpital ba mok papam dembu ci guddi nak xalé bi tay liko may daraja bi muy ñaanug way jur kon ma ngi lay denk di denk sama bop na ngay wakkirlu ci yalla fonk sa ñaari way jur ak sa bop sa borom ndax yalla nee na ko xamne da nga wakir lu ci yalla yalla suñu borom doyna ko kon ma ngi lay denk di denk sama bop ñu fonk suñu ñaari way jur ki doon def video bi bok señ sëriñ gay wassalamu alaykum wa rahmatullah